yonent bi nee na képp ku def série walla nga organiser cérémonie boo xam ne lu xaraam lañ fay def ku fa toog bu dee junniy nit kenn ku ne ñu bindal la mille bàkkaar yow danga am ci kenn ku ne mille bàkkaar su dee lu baax la nit ñi di ko déglu li ko déglu ci nit ku ne bu amee milliards yiw danga am ci ku ne milliards yiw waaye gis nga ko moo tax ñiy lekk riba ci feebar la ñuy mujj feebar yoo xam ni du wér too mën a lekk ndawal too mën a naan soow too mën a lekk yi nga soxla yëpp dañ lay daal defar régime spécial suukar bi ngay lekk du neex alors pour wax la rek ni baaxul ñaan yonent bi da daan wax ni na ki lekk alal mu jógee fu lewul mu sol yére bu jógee fu lewul dëkk ci kër gu mu triande comme ni gars yi def jël terrain jàmbur tabax ko duñ ci man dara mas naa ko benn nit ci Cees gi munu may déglu benn jigéen moo lañ jaay kër xam nga ko parce que euh, frère kilifa la ci gouvernement bi ñu jaay kër ndaw si mu dem toj kër ga parce que frère am kilifa la ci gouvernement ndaw si fekk ma boobu ñu nga conception mu wax ma ko ma ne ko demal tabax mu tabaxaat ñu tojaat ma ne ko tabaxal ma woo ko ko jaay ma ni ko xanaa yëgoo li xew mu ne ah ma ne ko ndaw si nu muy moomee kër gi góor gi moom kër gi ko ko ko lijjanti ko lijjanti ko baa nga lëj yow parce que yéen ngi lor ndaw si mais fañ mujj ñoom ñëpp baaxul ñëpp xala mu neen ñu ngi ci suuf xam nañ ñu may déglu ñoom ñëpp xalangu nañ amatuñ luñ tabaxee benn mètre jigéen ju amul dara yor njaboot wut fu mu làqatu dajalaatu di jaayam ba jënd terrain nga ñëw nangu terrain bi mu tabax nga toj ko toj nga sa musiba jigéen kenn du ko toroxal toj nga sa musiba ah waaw parce que li nga toj baaxul moo tax il faut ñu dellu gannaaw gis nga yonent bi dafa masu wax Haaroon nee na ahwoonu riba déglul bintu de baat riba du olof arab la <laughs> baatu riba arab la mooy yokk lu ci bokkul xanaa xamoo bu ngeen jaayoon émission jaayoon heure muy une de temps la bintu jaay waaj soirée et fils une heure de temps la jënd ñëw di def heure bi jeex ñu arrêté ko mu lànk su tegee une minute riba ci moom looluy riba benn minute bu ci tegee riba la na ko fay ba yàlla audité ko parce que une minute une heure de temps ngeen waxaale yokk na ko muy riba mooy yokk صلى الله عليه وسلم من أهون الربا كالذي ينكح أمه نينا بن درم بلو المحمد غنخكو هارون لكوكو ay tappale sama yaay daa feebar ñu bindal ma ordonnance lewetali bët paa bi nangam sama sœur nangam Haaruna daw lijjanti benn cinq mille jox la nekkee dara du ci dëgg dara du ci dëgg dara amu nga jël xaalis ba lekk yonent bi nee benn dërëm bu lewul nga lekk ko muy alalu jàmbur am ku jóge ci àll ba takk yaayam takk yaayam ñu may ko ko jébbal ko ko mu tëddee yaayam tëddee yaay li muy garaaw garaaw lekk benn dërëm bu lew la ko gën a garaaw xëy seetal loolu nit yegg ci kaw yaayam tëddee ko sëyee ko li muy garaaw yépp benn dërëm bu lew la ko gën a garaaw. xëwanu riba kalladi yankixu ummahu yonent bi ko wax parce que riba alalu jàmbur la tëddee yaay bàkkaar la xàq ak bàkkaar yemuñu xàq gën a garaaw parce que maa moom procureur mënul maye bor moo waral muy tëj amul fukk droit maye mu libéré nit ki te fayul boru jàmbur mën nga fay déedéet da nga mën a fay déedéet mu ne kon da nga tëdd peen bu tollook bor bi tout court mënu ko maye yàlla du ko def wa maa rabbuka bi zallaami lil abid mais loo ci man fi ne nu gaa yi amee baax bëkk néeg bi ci bunt bi sax ci la bokk yor caabi yow ki ngay ki la yow sëriñ bi moo la fi tekkee na la jox waaye nga ñëw woy euh, Oustaz Harouna ngi ci biir yaa yor caabi yi ku joxewul dara du yegg sëriñ yooyu ñu lay jox nga di ko lekk daganul xaraam na ki ci mairie bi war a lijjanti nit ñi kayit te tant que ko dara sa kayit du gaaw la mu cay lekk xaraam na mënta fayeeku ci mairie bi di fayeeku ci nit ñi ñaari salaire pourquoi fan nga koy teg moo tax dara retraité torox torox rek ahwanu riba kalladi yankixu ummahu benn dërëm bu lewul nga lekk ko benn waaye dem jël yaayam sëyi ko ñu may ko ko mu sëyi ko la muy garaaw garaaw lekk benn dërëm bu lewul la ko gën a garaaw waa lekk dërëm bu lewul nag bintu lu ko gën a garaaw moom wa inna arba riba istiqalatul mar'a fii ardi aqi lekk dërëm bu lewul li muy garaaw yépp nga tudd sama der wax ci lu ñaaw ko gën a garaaw seetal loolu yeneen ti bépp man waxuma ko su ma ko waxoon ne la maa ko wax man a loo tus mais yeneen wax wa inna arba riba li gën a garaaw dërëm bu lewul istiqaalatul mara fi irdi aqi toog rek wax ci deru nit lu ñaaw bintu gay nangam lu ci sa yoon pap gay nangam lu ci sa yoon usahaaru lu ci sa yoon te yenent bi nee na ku gëstu sa bopp gis loo wax ci sa bopp da ngaa sob rek hmm? ah ida arat ida arat an tadkura uyuba gayrika fadkur uyuba nafsika yeneen bi nee na ko amul sikk amul bala ngaa toog di wax ci sikki yi nga wax sa jos jos nag sa jos mais josi jàmbur du jos ji sa josa wax ci mais c'est ça loolu rek la mais xoolal ni ko yenent bi tërale benn dërëm bu lewul nga lekk ko li mu gën a garaaw ku jël yaayam takk ko tëddee te déeyaay li muy garaw yépp lekk riba ko gën a garaw lekk riba li muy garaw yépp muy jël deru gor nga wax ci lu ñaaw ko gën a garaw kon ñun fu ñu jëm waa ñi ci réseaux sociaux yi fu ñu jëm man kenn waxuma maa dégg bintu ñu envoyé ma lien yi ku saaga maam Cheikh Omar tudd yaayam saaga Cheikhuna Tidiane Chérif tudd yaayam maa ko dégg ci sama nopp saaga Serigne Mansour maa ko dégg ci réew pour lan fuñ jëm lu la neex nga wax yow yemal ci Iran mu tane ak ñoom Mohammed ak ñoom Maas waaye ku toll ni Cheikh Omar ku toll ni Serigne Touba ku mel ni Seydi Hadji Malick ku toll ni Serigne Mansour ku toll ni Cheikhouna Tidiane Chérif cheikh moom xaw ma lu xew ku ne bëgg koo jë def ko ballon di tulli rek ah waaye rëbb ba dem na Serigne Abdoul Al Amin ci dundam ceeli naawul benn ceeli këful cuuj Serigne Abdoul Aziz laa wax al amin moo teewoon ceeli yi naaw moo teewoon bal dugg ci kaay ba mu faatoo la bii bëri ceeli yi di këf cuuji al amin laa wax moo tax nee naa leen jamono bu ne image day génn waaw parce que noonu la taxawaay dafa baax grand Serigne menn muy maam Cheikh mbay grand Serigne benn seen bos bu ceer grand Serigne Trian du xam ngeen ko Trian international waa jooju am na nag ku muy nirool xaali xaali bii théâtre xam ngeen ko xam ngeen xaali moo grand Serigne copie confort dañoo niroo niroo xaali ko gën a neex yàlla bindu mais grand Serigne daf ma wax lu am solo gàmmu Tiwaawoon daaw ñu war a def émission ñuy waxtaan ci saal bi mu ni ma cheikh bi xanaa xamoo ne bàyyi lu mat bàyyi ko mat a ko gën may dox ba dégg sëñ cheikh wax ko ma ne ko waxi mag nga la maga la ko wax de mu ne ma waaw bàyyi déglu bintu bàyyi sa papa jóge bàyyi ko mat sëkk ko am taxawaay mu gën mu jóge fi bàyyi lu mat sëkk ci alal te amul ko taxaw kër gi day tas grand sëriñ ma ko wax ci moom laa ko njëkk dégg mu ne bàyyi ku mat moo gën bàyyi lu mat gis nga soo bawul lu mat te bàyyi ku mat taxawaayam dana dem ba mu liggéey lu mat sëriñ kër ba muy samp sëñ Abdou kenn xamul lu tax ndax sëriñ Cheikh a fi mag ko sëñ Moustapha mag ko sëñ Mansour mag ko mu jël ko teg fa xamuñ la xam ne tax nekke moo war a góolukaay yi moo war a rey ceeli yi ah xam ngeen ni déroulement feebar yi bu fi sëñ ab nekkoon du déroulé nii jamais ah ji nga bi fi koron euh, feebar boobu noonu tudd ko Ebola ba ñëwee seet ko di ko wax waa dañu bëggoon ndax day wàlle ñu tëj jàkk yi dafa jàngal président bi ne ko jëlal dog bi yaa xaadiran yaa muridan yaa xaayman bi nafsi haada maradun jadidun fag fi naa min ba si bindal ko ko ne ko dee ko jàngati bàyyi ñuy julli di ñaan kenn du tëj jàkk jeex na li may wax du fen waa Tiwaawan na koy dégg moo tax loolu lu am solo la grand sëriñ ma ko wax gàmmu Tiwaawan bi le ñuy waxtaan ci saal bi di waaj a yéeg pour def suñu émission mu ni ma bàyyi lu mat sëkk bàyyi bu dee bàyyi lu mat milliards yi oto yi kër yi te bàyyiwul ku mat dañuy xëy ñoom ñëpp yelwaani dañ koy fooye waaye nee na kuy dee bawul dara waaye bana fi ku mat sëkk ku am ku am taxawal nee dana indi lu mat ndax ku mat mooy liggéey lu mat te wax na dëgg xam-xam la